إن الذين بايعوا الرسول بخدمة قد بايعوا ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif xalifa sëriñ Masamba Njéeri Diop Ndama ak it ci kilifteefu sëriñ Muxtala Mbàkke moom sëriñ Fàllu sëriñ yi màggal gi muy defal maamam 18e édition màggal sëriñ Masamba Njéeri Diop Ndama mi ngi ma nga xew ca këram Touba Guédé Fàllu sëriñ Fàllu xalifa sëriñ Masamba Kani Bousso sëriñ Baara Bousso xalifa sëriñ Matar Aliou sëriñ Aliou Sila sëriñ cumbaleel sila sëriñ bàcci Diop xalifa sëriñ mbay màkka ca màkka soxna muslim mbàkke moom sëriñ asgédé mu ne mi ngi ko yëgal sëriñ moustapha ramata xalifa ci la draman mi ngi ko yëgal association des chefs religieux du sénégal sëriñ birahim ndiaye xalifa sëriñ ndiaye gédé sëriñ cumbaleel sila moom sëriñ moussa sila sëriñ aski ak touré chef religieux à dakar mbokk bis bi nag kan mooy parrain ba ñu ni sëriñ moustapha ndiaye alkarim chef religieux à touba fass mbaw di ku baax di ki nga xamante ni taxawaayam yépp mooy diine gi bëgg sëriñ touba loolu King Modou Kéman mi ngi ni biral ni kat xaritam la sopem la léppam la ken gënu ko ku bax la ñu ko dara jàllee Serigne aliou ndiouf Lambaye opérateur économique adjoint au maire si kan moy marraine ba di soxna Adama Fall ak soxna Kounta moom maam bu mu ay invité PDG Cheikhouna Thiam entreprise Mafatihul Bichri soxna May Bousso président daire Ashabul Jannati mu ne mi ko yëgal monsieur le préfet du département de Mbacké monsieur le sous-préfet de Ndam monsieur le maire de Touba Abdoulahad Ka di ko commissaire ba police bu Ndamatou commissaire Chaba comme commissariat du Plateau professeur Diomaye Jean Serigne Bakefay, Faye saf bu hôpital Cheikh Ahmadoul Hadim Boutouba, docteur Ndeye Maguette Diop médecin chef district Boutouba, Touba Serigne Omar Ndiaye Kebemer, Badara SDDR Bambay, Madame Fall SDDR Baké, PDG Cheikh Mbaye PDG Mbaye Ndiaye presse Ndiaye Mbaye directeur, directeur Galas Président Assis Modou Fall Sérigny Serigne Sila Mom Serigne Salou, docteur Matarlo directeur hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Abdou Sissé, directeur hôpital de Wurusogi chez le ministre Oumar maire de Thiadiaye chez le ministre Moussa Balde, président du conseil départemental de Kolda Omar Sane, directeur bu Chez Momo de Kassi président du conseil départemental de Tambacounda Serigne Baké Diop Ndiandam chef religieux à Touba Serigne Baké Madina chef religieux à Thiès honorable Abdoulaye Sek au Conseil des collectivités territoriales, M. Mofarindia et au Conseil des collectivités territoriales, M. Khadim Sina, directeur du développement communautaire, Mme Sek Bintundaou. Sornamam Assambaki, Mom Serine Sidi Abdullah Mbaki. Ibrahim Maeng, transitaire à Dakar soxna Ndeye Mbacke moom Serigne Abdou Fatah Mbacke Falilou Serigne Ndiaye Kemmer, ak wa Kébémer gépp Dakar non Dakar Ablaye Seck khala Cheikh opérateur économique maire de Darou Naïm Serigne Modou Ndiaye opérateur économique à Touba Serigne Isma Diop opérateur économique à Touba Cheikh Gueye opérateur économique à Touba Cheikh Ndiaye Mor opérateur économique Touba dal Khoudous Abdou opérateur économique à Touba Lamine Diouf DAGE ministère agriculture Pape Cheikh Fall DAGE ministère élevage Modou Thiam président UNIS Sio Gora Kane Italie Johnny Meng mom Serigne Abou Mbacké Falilou Serigne Sidi Seck Touba sa kanam Ami Diaw responsable politique à Touba mu ni mi ngi ko yëgal wa Dox Jàmm waa Kër Sidi Meng mi ngi ko yëgal waa wa waa Cila Dramane wa Màkka waa Njaane waa meewunu fàttewu si kenn bàyyiwu si ñenn mu mi ngi daayira yi aju ci kër gi yépp tam doon seen jëwriñ daayira Mbuur si njiitalu Serigne Amad Dia daayira Dakar si njiitalu Serigne Khadim Faye daayira Thiès si njiitalu Serigne Abou Fall ak Ibrahima Fall wa daayira Touba si njiitalu Serigne Kot Ndiaye ak Serigne Mbacké Seck waye tamit fàttewul wa plateforme so yi Serigne Modou keman Diop di groupe WhatsApp bi nga xamante so soppe ño fa nek dafay liggéey liggéey bu am solo entreprise Maka job service bis bi am nañ si ay sponsor officiel ñu mën see lim Samir Events Déco bash bu ngeen amé événementiel bëgg décoration bëgg bâche yu baax bëgg clim bëgg sons et lumière taamu leen Samir Events Déco si njiitalu Serigne Sam Mbacké programme business PDG soxna mam Diarra Mbacké Touba aviation tourisme King cosmétique ak groupe EMG bu Cheikh Mbaye Guèye entreprise ma fàttixul Bichri bu Cheikhouna Thiam Thiam akit ETEP ci njiitalu Serigne gay Seck waye tamit dinañ ci and ak Ahma gay snapper des VIP ñu bis bi dinañ si nak fas amal ay hommage ko si ñaanal si ñi ñuy bëgg lim Serigne Fallou Ndiaye Guédé Serigne Mbacke Diop Ba Seck Sadaga Soxna Bator Diop Serigne Cheikh gay Serigne Talla Cissé Serigne Makhoudia Meng Serigne Cheikh cham Serigne Abdoulaye Fall a ah, mbokk yi ba tay bis bi amna tamit ay décoration ñi nga xamanteni japp jàpp nañu ni kat ñoo gëna fess sen domaine Serigne Modou Kéman Diop nee na ñu faseen leen jaajëfal fasal leen remercier remercier leen si taxawaay bu am solo bi Serigne Mbacke Mara officier d'état civil si Touba El Hadj Ndiaye Cheikh Nindi Serigne Dala Serigne Anis Seck soxna maam Mariam Diakhaté bajonu gox Ndayu Daara Serigne Ibrahima Samb Xelkom Serigne El Hadj Khassida, Xasida social taxawu sancaan association des anciens élèves de Serigne Abdourahmane Baki, président de Sering Serigne Mbacké Diagne Waye tamit les femmes vaillantes de pays Serigne Bamba Touba Soura présente bi di soxna Mame association des relais communautaires de Touba Darou Marnan, président di Ablaye Fall Diouf bis bi nag mbokk yi dinañ ko amal bi bile programme dinañ xëy jàng alquranul karim yendo khassida tuddu tur yalla amal bernde si ngoon ñu amal cérémonie officielle bi ma ngay tambali à partir de 20 h and ci ce micro central bi à ak Serigne Modou Mbaye Ndiaye dinañ si ànd également ak conférencier bi di Serigne Khadim Ndiaye wakkaana xaqan ak i jàngkat yi ñuy bëgg lim Serigne Jiri bam Bamsa Sine Serigne Bara Sall Serigne Khadim Silla mbokk yi bis baa ngoog na ko ñëpp fannoo samedi lay doon 18 mai 2024 si Touba Guédé Serigne Modou Kéman Diop moo leen di yëgal màggal gi muy jagleel maamam at bu nekk di ma Massamba Jiri Diop Ndama ñu ngi si sàkku teewaayu ñëpp incha allah.